salaamaaleykum mbokki internet yu ci Dakar ñu ngi leen nuyu di jëleen jaajëfal tey ñu def benn micro trottoir gis ngeen démb li nga xamante ni moo xew ca Guinée muy euh, coup d'état bi nga xamante ni def nañ ko Alpha Condé Guinée yi def ko ba pare di manifester wu di jubiler contentement bi nga xamante ni Guinée yi wone nañ ko tey ñu ngi fii euh, dañuy xool Guinéen yi ñu nga xamante ni ñu ngi Sénégal ñi nga xamante ni ñooy dund à Dakar ñi nga xamante ni ñooy ñooy liggéey ici à Dakar ban point de vue lañ gis ci loolu lan mooy seen gis-gis yi nga xam xamanteni ga def xew dem ci sen deuk muy Guinée top len ma rek ma jox len ay xibaar yu leer ci manifestation yi nga xamanteni ni xew Guinée dem. bon ma son point de vue moy maanaam affaire bu lu baax la liñu def non parce que Alpha Condé amna deux mandats il fallait partir cédé mo kenen ñëw jël nanguwul y avait euh, nit ñu bari ñu ci ñak sen bakkan c'est affaire troisième mandat loolu gisu ko yëgalu ko yaramam ñi ñëw def nañ ko d'état jëw ci dañ leen di ñaan bu xasse ba jël nguur gi comme que jël nañ ko dans six mois nañ organiser ñu jox ko civil moom lañ gën a bëgg quoi c'est ça le problème loolu mooy suñu suñu ñun. boo xoolee démocratie ak loolu ñoo ànd xam nga démocratie dafa laaj ku nekk nga libre si sa choix loolu mooy démocratie ku nekk am na droit manifester mais manifester ba a yàq mais booy manifester pour état de droit am ci dëkk rek loolu lu ñu war a rafetlu la quoi man noonu laa ko gisee quoi wax xam nga loolu boo gisee mu am. sa président yi mooy moo moom moo ko sooxe c'est le président Alpha Condé nit boo ñëwee si dëkk ñi nga fekk ñëpp bokk ndeeg baay waroo ñëw di leen xajali boo leen rek dara du dem parce que dëkk ku nekk bu nekkee dëkk ci booram rek day dagg dëkk moom benn bopp la kenn war koo xar ñaar loolu lañ xam ci dëkk mais ku nekkee sa boo xëccee sa côté rek day metti bu mettee day daal di dagg quoi c'est ça problème. waaw moom loolu vraiment loolu ci la gën a bokk loolu moom ci la gën a bokk dafa ñëw ci dëkk bi fekk ñëpp bokk ndeeg baay moom mu ñëw diviser leen te division moom baaxul ci dëkk quoi loolu ba amee rek ku nekk da ngay gis sa bopp c'est ça le problème ko ok man waaw ñu ngi leen bëggee saa su ne. di la jaajëfal euh, li ñu lay laaj mooy euh, coup d'état bi nga xamante ni def nañ ko démb ci Alpha Condé ñu gis population yeen bi génn manifesté wu woon ci contentement yéen ñi nga xamante ni yéen nekk fii Sénégal lan ngeen am pour wax ci loolu. waaw ñu ngi lay delloo njukkal di la di la di la di waaw euh, loolu wax dëgg yàlla euh, ñu bëri kontaan nañ ci waaw mais lu lu bettul kenn la nag parce que population Guinée dañoo dañoo souffre dañoo sonn sonn nañ trop ci nguuru nguuru Alpha Condé bi wax dëgg yàlla donc li bettul kenn ko waaw. Euh, jàpp nga ni jeunesse bi li mu def loolu la li ñu def la fekk ñu dem fokkati ko génnee ko ak armée bi génnee ko sans son consentement jàpp nga ni loolu lu baax waaw dañoo sës rek soo gisee population bu sës moom mooy lii ko wax waaw armée bi jàppale ko colonel bi tamit japp ci bu baax a baax waaw Sénégal jëm ci kanam quoi ak guiné <laughs> d'accord mais euh fait yeen yi nga xamanteni population guinéenne soit ngeen nek fi wala ñi euh, guiné euh ki nga xamanteni ni que ngeen bëgg mu outu Alpha Condé yan conseil ngeen ko mëna mëna mën jox. waaw premier conseil moy dañu bëgg civil gouvernement civil lañ bëgg gouvernement bo xamanteni wax deug yalla ben armée du ci bok kenn ko xamanteni militaire la am détenu du ci bok donc à consensus bo xamanteni esprit tranquille esprit buy defar lañ bëgg ñun wax dëgg yàlla politiciens yoo xamante ne yu baax yu liggéey Afrique yëpp loolu lañ ko bëggee waaw. sëñ bi ñu ngi lay merci. on a vu hier euh, la, rébellion des Guinéens et des Guinéennes. On a vu que euh, vous avez fait un coup d'État au président Alpha Condé. Quel, sont votre, est votre point de vue euh, vis-à-vis de cette situation Ok, donc c'est Mamar Saïdso. Je suis d'abord étudiant j'ai commencé les études en Guinée, je fais le, euh, disons la licence. Je suis venu pour deux ans de master. Mais bon, la situation du pays nous inquiétait vraiment parce que ça, c'est les forces du troisième mandat qui a amené à ce qu'il y a eu vraiment la dissolution de ce pouvoir. Parce que les gens n'étaient pas d'accord à cette constitution. Vous avez vu, il y a eu plus de 200 jeunes qui sont tués. Nous qui sommes là, on est apuré vraiment de rentrer. Pour ne pas te mentir, là, on avait vraiment peur de rentrer au pays parce qu'il n'y a pas de boulot. Tout était euh, réservé pour les boss, par disons par l'État, quoi. Ils ont pris l'État comme leur famille, quoi, en fait. Ils ont tout confisqué. Je pense que c'est ce qui a amené la gente à vraiment revenir l'ordre parce que le pays vraiment était vraiment à l'agonie, je vous assure. Euh, monsieur Sow, euh, que pensez-vous de cette, euh, de cette jeunesse qui opte, qui pour la violence, de cette jeunesse qui se révolte, mais d'une manière violente en fait bon, je pense que la jeunesse maintenant en est consciente. Parce que si vous regardez depuis 4 à 5 mois, il n'y a plus de révolte en Guinée. On a essayé d'installer des paix à ceci, cela. Maintenant, comme on a dit que la jeunesse est là, à chaque fois on la sacrifie, maintenant elle se retourne. Maintenant, elle va essayer de regarder les jeunes politiques. Maintenant, je pense qu'avec avec ces coups d'État, la, jeune, la jeunesse va prendre du recul pour voir vraiment l'avenir de ce pays, ensemble de travailler, laisser l'ethnocentrisme parce que le président, il a semé l'ethnocentrisme. Et aujourd'hui, tous les Guinéens sont contents vraiment de se rassembler et on n'a pas d'ethnie aujourd'hui. La Guinée est, dans son ensemble aujourd'hui. D'accord. Euh, vous, en tant que jeune, en tant que jeune étudiant, que conseillez-vous à, votre, à, vos, concitoyens qui, qui, optent pour la violence ou qui optent pour euh, l'égocentrisme Je pense que déjà les citoyens, ils ont, laissé, ils ont abandonné vraiment la, violence. Si vous voyez euh, la scène de l'IS qui s'est passé hier à Conakry. on a vu des jeunes, mm, mm. qui, jubilaient. Oui, mais qui jubilaient, mais il n'y a pas eu d'affrontement, je pense. Bah, il n'y a pas eu euh, d'affrontement, mais euh, cette violence euh, que jeunes vont implanter dans le... Non, je pense que ça va s'arrêter, quoi. Maintenant, on voudrait vraiment qu'on ait vraiment un président démocratiquement élu que le peuple a choisi, ensemble que le peuple de Guinée, que ce soit de telle région ou de telle région, on laisse ça à côté et qu'on cultive la paix et le développement du pays parce que la jeunesse est au chômage. On aspire vraiment à l'emploi. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. D'accord, mais si je ne me trompe pas, vous avez, c'est vous-même qui avez choisi Alpha Condé et vous l'avez élu comme président. Et il a fait premier mandat, deuxième mandat, et troisième mandat, vous, vous voulez l'enlever par force Non, moi personnellement, et la jeunesse sénégalaise, le, le diaspora n'a pas voté pour Alpha Condé, il a essayé de faire pour lui-même. Alpha Condé, le diaspora n'a pas voté pour lui. Si vous vous rappelez, c'est simplement qu'on a la Guinée qui a voté pour lui. Et le diaspora n'a pas voté. Donc, je ne peux pas me, dire que je suis là, que, je, je suis partant de l'installation d'Alpha Condé pour son troisième mandat. D'accord. Euh, monsieur Sow, vous, en tant que jeune, en tant que citoyen de Guinée, quel est, quel est votre point de vue en fait je, vais vous demander, euh, le président qui va succéder Alpha Condé, quels sont ces conseils que vous allez lui donner en tant que jeune citoyen ou en tant que jeune étudiant Bon, je pense d'abord, euh, mon message va à l'endroit du, du colonel Bangoura. Eh, pardon, le colonel Doumbouya qui vient de renverser le dictateur. Parce que nous, nous disons c'est le dictateur. Passer un mandat de trop, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut que nos chefs apprennent à respecter leur peuple le choix de leur peuple, ne pas essayer de faire le forcing des choses. Parce qu'Alpha Condé avait toutes les chances de sortir par la grande porte. Maintenant, il a essayé vraiment d'être humilié. Salam alaikum, Sohna Aïssat Bari, euh, Bantingel, président du mouvement des femmes ici au Sénégal. Nous sommes venus de la Djadjafal. Au fait, ce euh, que nous avons dit, c'est que nous avons Guinée, le euh, coup d'État que nous avons fait Alpha Condé. Comment vous avez vu ça Assalamu alaikum. waa Sénégal maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm guinéen le les guinéens tey seen xol dafa sedd parce que Alpha li ñu def metti na li ñu def mënatuñu ko fay mënatuñu ko kii yàlla rek moo ñu mën a jàppale ci lool yàlla moo ñu jàppale ci lool Alpha li ñu def xale bu tuut da ngay fekke dafay fekke ngay togg mu jël togo bi tuur ko sa njabooti toog lekkul alpha ñun kar lii dañu ko yaakaare woon yàlla moo ko tàmbale rek démb wante dañu leen di jëral jërëjëf waa sénégal parce que waa sénégal ñu lu ne lu lu nekk ñu ngi koy def fii ngeen ñu muñ léegi nu ñun yàlla baax na alpha yàlla na ko yóbbu na nañu ko yóbbu ardon fi mu yóbbu woon nit na ko yóbbu ardo waaw yaay yaay booy en lan nga mën a wax jeunesse su guinéen yi nga xamante ni que ñu ngi xaw a xëcc violence bi ci ñoom nga xamante ni que bu ñu manifesté wu rek il faut ñu indi violence lan nga mën a conseiller jeunesse yooyu yi nga xamante ni say doom la ñu ngi Guinée nan nga leen mën a wax ah jàpp rek ku am ku ku taaw ñu ànd am moom ñu liggéey dëkk bi ñun liggéeyuñu dëkk bi parce que lu nekk nekk na ci dëkk bi bo sikk am na jaamaan am na or am na lu nekk am na foofu xaalis bu weex am na xam ngeen loolu yëpp am na ci dañu bëgg ñëpp ñëw dimbale ñu ñuy liggéey dëkk bi nekk dégg yaay booy euh, ci nga xamante ne que puisque instant bi Alpha Condé def nañ ko coup d'état ki nga xamante ne que moo nar ut Alpha Condé boo leen ko élire lan yan conseil nga ko mën a jox ba nga xamante ne dina mën a mener à bien loolu mu bañ a def même erreur yi nga xamante ne Alpha def na ko. ah li ñu conseillé ñii ñëw nañu jàpp ñëpp ne ku nekk ñu ñëpp ñu nekk ndey ku bokk ndey a baay loolu la ñu kii loolu la ñu bëgg ñu bokk liggéey dëkk bi. merci ma yaay booy ñu ngi lay jaajëfal Diane Diallo ngi lay nuyu di la jaajëfal gis nañ démb li nga xamante ni moo xew fo ca Guinée muy euh, coup d'état bi ñu def Alpha Condé euh, ñu leen doon laaj yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a dëkk Sénégal ngeen nekk ay doomu Guinée nan ngeen gisee loolu. Ah, gisee ko moy coup d'état baax na waaye comme yàlla def na coup d'état bi am na histoire amul xeex amul reyante amul loolu nekk na coup d'état bu nekk na coup d'état bu jàmm. d'accord ci nga xamante ni ñoo fa nekk muy jeunes yi fa yi nga xam ñoo nekk Guinée actuellement yan conseil nga leen mën a jox pour ñu baña a euh, euh, xiir seen bopp ci violence wala ci yenn détails yi. xiir si bopp ci violence bi mooy lu am Guinée mooy affaire euh, boddikente xeet ndax kii kii kuutaan moo ko jël France fii la nekkoon Thiès Dakar fii mu jàng fii moo ko fayal njàngam moo ko nekkoon France moo ko jël indi troisième mandat bi ki moo ko jàppale nek mu nekk troisième mandat bu mu encore comme affaire xeet la ñoom ay bambara ay maninka lañ moo tax kowita bi ñoom lu den ñu bëri xamuñu problème politique bi mais politique bi bu yàggee tuuti te ni jàpp ne kii baara yëgoo am na si biir ci ki nga ngeen bëgg mu utu président Alpha Condé euh, wala ma ne ex président Alpha Condé lan yan conseil nga ko mën a conseil conseil mooy baara yëgoo bu def nii mbokkam mooy rek lu ñu jàpp mooy pour le Fouta moom du mun a falu wala ñu jàpp affaire affaire famille mooy dox Guinée te bokk ay yeneen dëkk yi waaye nag lu si kanam comme dina am ay juróom-benn weer si kanam dinañ xam affaire du woote bi nu muy nu muy demee. waaw bu beneen beneen xeet ñoom dinañ xam bu nekkee seen biir dina nga xam ne encore loolu ndax kii ak kii ñeenti nit ñoo def kuyutaa bi te ñi yëpp ay mbokk Alpha Condé kii mbokkam la kii def kuyutaa ni mbokkam la waaw noonu nañ si bàyyi xel ba d'accord merci. Euh, sëñ bi ngi lay nuyu ah, euh, man maa ngi Amadou Ka. Amadou gis nañ démb révolution bi nga xamante ni am na Guinée ñu gis euh, la jeunesse guinéenne génn ñu def aussi Alpha Condé coup d'état nan nga gisee loolu aussi. mooy li ma ci gis rek mooy ak kontaan la jàppe jàppee kontaan naa ci trop parce que Guinée waroon na passé fii mais ay njiitam yu bon moo tax Guinée tardé ni mu tarde te Alpha Condé dafa téye woon Guinée rek mu jàppee comme comme këram. di ci def li ko neex moo tax dem bi mu xewee rek ñun dañ cee sant yàlla. mais njiit bu bon boobu yéen a ko faloon def ko premier mandat deuxième mandat troisième mandat mu ñëw toog euh, ngeen euh, ngeen gis ni que la meilleure solution mooy ngeen ñëw jëlee ko foofu par un coup d'état. non euh, Alpha Condé moom troisième mandat bi kenn falu ko parce que bañ na ko sa Guinée ñu nekk ci biti kenn wote wu ci dafa tëjoon frontière yi a ne ñoom du ñëw wote kon ñun loolu metti woon nañu trop li tax que ñun ay africain lañu. Afrique de l'Ouest ñu ñëpp ñoo ko bokk su ñu gisee loo xam ne ñu koy def lu ñaaw ñun dañ koy ñaawlu man je ne suis pas un guinéen je suis mais dama cee dama cee ñaawlu woon parce que xam naa loolu droit de l'homme da koy tere nit kii dañ ko war a jox ak àqam mais bu nekkee ci biti war na am àq mais ñu tere ko ñu tere leen woote ñun loolu mu naqariñu. et ñi nga xamante ni ñu fa nekk dund ko euh, lan nga leen di conseiller waaye ah. euh, man maa ngi leen di conseiller jeunesse bi tey pour ñu liggéey ñu jéem a jàng liggéey ñu xam ne liggéey rek moo mën a yore réew te aussi tamit président dañ koy choisir dañuy tànn njiit njiit des na ko tànn du ku leen neex rek nañ ko fal déedéet dañ koy xoolaat balaa ñu koo fal. nit ñi dañu génn di révolté militaires yi ak eh, population yi démb ñi ànd ji kontaane kenn merewul kenn loolu démb la mu sa am ci Guinée ak gendarme ak population bu mel ni man di génne di manifester kenn du maanaam kenn merewul kenn kenn du gaañ loolu musumaa gis lu eh, mu tuddati attentat bu mel ni boo xam ne kenn merewul bu baax a baax a baax a baax waa ji saa dina na day xam ne Guinéen dañuy sonn ba pare yu jàpp waaj ma ne mais waaj de eh, lii daal du dem béy càng xamatuñu fu ñuy dem après mu attaqué waaj mu euh, ni ñoo nekk fii au Sénégal nan lañ li nga xamante ni moo xew démb foofu ca Guinée muy coup d'état bi ñu def Alpha Condé euh, mu loo xamante population. association yi nga xamanteni talal nañ leen suñu micro yépp dañ ne contane nañ ci coup d'état boobu parce que Alpha Alpha Condé dafa nekk président boo xamanteni nga divergence la doon indi xaajale ay xeet te ki ko def coup d'état mu nekk mbokam bu ko sës lool mu nekk koo xamanteni que moo ko jàngal fayal ko jàngam moo ko def coup d'état boobu parce que waa Guinée dañoo xawoon sonn ci li nga xamanteni Alpha Condé mu ngi foofu mu ngi ko bëggoon implanté foofu mais aussi jeunesse bi moo xawoon a sonn ci li nga xamanteni ni mooy dictature Alpha Condé donc on peut dire que dañoo sonn maar moo tax ñu def def coup d'état euh, man li ma xamanteni ni ngi ko koy laaj di ko laaj sama mbokk internet yi moy jeexital bi fan la te aussi euh, coup d'état bobu lan encore lay indi ci koom Guinée mang avocat la question bobu dama len koy laaj ban njeexital lay am te aussi lan nek euh ëllëgu guinéen ci sen ci sen walu nañ ni que Guinée est peuplée de douze millions et quelques d'habitants et vis-à-vis à ça ak sen ressources yo xamanteni Guinée am nañ ko yan jeexintal lay am lan lay yan gàllankoor la la coup d'état bi ak fermeture de frontières yi la la nar am ci seen euh, koom-koom ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ba beneen numéro ci beneen micro trottoir Mami Cha merci beaucoup